tey ñu ngi dalal euh, Aymérou Gningue honorable député moo jiite tamit groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar président ñu ngi lay nuyu am mbégte lool dalalaat la ci plateau matinal bi ngir euh, waxtaanee li jotoon a xew ci at mi. maa ngi lay fay faatu man damay am mbégte toujours di ñëw ci sa plateau. Euh, pour waxtaan euh, waxtaan loo xam ni dina ñor réew mi te dina ñor ñuy yewoo ci réew mi. fi ñu dooree président mooy euh, laaj la assemblée naka la def gannaaw bi fa doomu jàngoro ji di coronavirus duggee am ay député yu mu laal jël tam kenn ci yéen ñu yeesal njaal jëm ci njabootam ak député yépp tey fan la jàngoro ji toll ndax ñi mu jàppoon ñëpp jug nañ. waaw ginnaaw bu ma jàllee suma xarit boobu nag doo pare nekkoon kenn ci man Marie Louise maa ngi koy jàllee mbokkam yépp di yeesalaan njaal mais di député dañ ko ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana damay wax ni xeetu jàngoro bi bi mu ñëwee ba tey ba président dajalee def li ñu tuddee conseil présidentiel assemblée nationale dafa jëloon ay matukaay yu am solo président Moustapha Niass jël ko ci wàllu ni nit ñi duggee ci assemblée ci wàllu ni ñu war a liggéey ku nekk gis nga ne eh, am na liggéey yoo xam ni dañ ko seetaat seetoon ba di ko def ci ni nga xamee moom la kër docteur waxoon ni noonu la ñu war a toogee parce que am na jaxasoo yoo xam ne tuñ koon am euh, yooyu yëpp tax na assemblée nationale wax dëgg yàlla mucc na ci feebar bi xam nga nag benn nit rek bu faatoo ëpp na te Marie-Louise moom yàlla def na bi mu feebaree sax ñun teel ñu ko yëg mais euh, yàlla jël na bakkanam amoon na ñeneen yoo xamee feebar nañu amatul nañu juróom ba juróom-benn mais wax dëgg yàlla yàlla def na ak kër docteur ak taxawaay yi nga xamee am nañ ko yàlla def na ñoom ñëpp wax dëgg yàlla tànn nañu wér nañu ba ñoom ñëpp dellu nañu seen kër. kon loolu tam ñu sant ko yàlla. mais sant ko itam matukaay yi nga xamee ni parce que fagaru dafa baax. fagaru dina yokk fan. comme sàggan mën na gàttal fan. defe naa ni ñaan nañu yàlla waaye nag fagaru nañu tam. pour que lii mën a nekk waa dëgg yàlla loolu ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax. alors président euh, at mi mi ngi jeex euh, ñu ñëw nag xool assemblée lan la ñu ci mën a jàpp askan wi nga xam ne moom ngeen fa toogal lan la mën a jàpp ci liggéey bi nga xam ne def ngeen ko si si at mi ñu génn. waaw dafa nekk at boo xamee ni Fatou at boo xamee ni dafa lëmbee àdduna ndax. li tax dafa am feebar bu dugg bi mu dugg see boobu la ñu commencé daanaka législature mais liñ ci mën a wax mooy am na lu ëpp juróom fukki loi ak juróom yoo xam ne jaar na assemblée ñu càmbar ko voté ko te loolu yëpp ci luy doxal réew mi la. am na tam bi nga xamee ni président jël nañu état d'urgence bi def ko te ñu mayoon ko moom muy mën a légiférer bi ñu ko mayee wax dëgg yàlla moom euh, indi na ay. Euh, euh, kii yi mu jëloon ordonnance yi mu jëloon pour indi ko pour assemblée mën ko ratifier pour mu mën a dugg ci dispositif bi nga xam ne mooy dispositif pour loi yi loolu yëpp def nañ ko ñoo ngi liggéey ci loolu motoon na juróom-ñetti ordonnance yoo xamee jël na ko ñu càmbar nañ ko ci ay commission ba pare ñoo ngi ko war a jàllale léegi ci ay plénière pour mën ko voter mais jàppal ni lépp loo xamee ni mi ngi doon jëm ci àqu liggéeyu liggéeykat yi lépp loo xamee mi ngi jëm ci yombal doxalinu euh, conseil municipaux yi nga xam ne ñoo am ci Sénégal ak conseil départemental yi nga xamee am nañu ci Sénégal loolu yëpp ay ordonnance la woon yoo xamee président jëloon na ko ak yombalal ak dimbali ñi nga xamee ñooy liggéey wala ñoo daan importer te bu ñëwee ci port bi amatuñu lu ñu war a mën a fay. ak li mu def yooyu yëpp pour jàppale leen pour que oyofal taxi pour taxi bi gën a gën a bañ leen a gaañ loolu yëpp defoon nañ ko te loolu dafa nekkoon loo xam ni ci jamono boobu suñ ko deful woon day nërmeel économie Sénégal président def ko pour dimbale ñi nga xamee ñoo fétti ci boor boobu kon daal li mu mën a jàpp mooy su ma waxee suma aqulay taala liggéey nañu ci façon boo xamee ni nag wax dëgg yàlla député yëpp daawuñu teew waaye loolu dañ ko waxtaanee bu jubu mais amul benn kuréel boo xamee ni nii am nga loo ko représenté te doo teew maanaam majorité bi day teew ku jégi teew ñi nga xamee dañuy bokkuñu fen di non inscrit teew bu ko defee ñu ànd li nga xamee ni wax nañ ko ñu voté ko bu ñu ko voté loolu day doon permettre état bi mën a def liggéeyam def nañ ko nag ci wàllu état d'urgence bi mais def nañ ko tam ci wàllu yeneen loi yoo xam ni kenn jëlu ko nekkul woon ay ordonnance yu président jël mais ay projet de loi la yoo xam ne dañ ko adopté ci conseil des ministres te loolu yëpp boo xayma ci biir at bi ëpp na daanaka mun naa la wax ni mat na juróom benn fukki loi yoo xam ne jaar na ci. yooyu yëpp mën nañ jàpp ne itam njariñ la rek ci askan wi. amul benn loi boo xam ni nii. Euh, gouvernement dina ko jël. jëmee ko ci defar liggéeyam. wala mu organiser loo xam ne nii. Euh, dafa war a doxale noonu koom-koom bi wala mu war a doxale noonu li nga xam ni moom la ñuy xaatim suñu diggante ak yeneen réew. par exemple pont de Rosso bi nga xam ne ñu ngi ko bëgg a tabax te nga xamee ni mënuñu ko def mukk te signé euh, voté wuñu convention fiscale bi war a dox suñu diggante ak Mauritanie yooyu yëpp njariñu askan wi rek la xam nga pont de Rosso président bu fi nekk rek bëggoon ko ko def waaye ku ko yàlla yam tombaleel ci yow yow yaa koy def boo ko dëgg yàlla léegi lekk na loo xame ne lu mën a nekk la ba voté nañu convention fiscale yi Mauritanie sax ñun ñu ko jëkk voté ñun voté nañ ko ba léegi jàpp nañ ni yooyu liggéey nag bu ñu ko defee ah kan lañ koy defal xanaa askan bi rek parce que ñoom lay yombalal seen dem ak seen dikk ñoom lay yombalal itam li nga xamee ñoom la ñu war a jëflantee ak euh, euh, waxuma la Mauritanie waaye li ñu war a jëflante ak Maroc ak ba Europe sax foofu lay jaar pour mën a yomb. wala askan itam euh, bëgg nañu ku leen gindi ci loi bu ñu xam ne dañ koy soppi. Mm-hmm. ñu cee wax ne itam état d'urgence état de siège ñu bari nag am njeexi jaaxa ci assemblée ndax dana mën a def liggéeyam maanaam saytu ni nga xam ne noonu la nguur gi doxalee. waaw dafa nekk loi boo xamee ni dafa war soppi loi bi nga xamee moo fi amoon 1969 nga xamee ni moom mooy dogal. état de siège ak état d'urgence xam nga état de siège ak état d'urgence dañ daan wax ni su fekkee dafa am jéye boo xamee dafa jóge bitim réew war a ñëw nërmel réew mi wala mu am ñu fi def ay complot yu mel noonu président de la république am na sañ-sañu jël état d'urgence fukki fan ak ñaar su ko jëlee fukki fan ak ñaar nag pour que mu mën a continuer il faut mu ñëw assemblée nationale assemblée nationale autorisé ko état d'urgence boobu mën a continuer état de siège sax waxuñu ko parce que état de siège mooy bu ñu demee ba armée bi rek moom mooy mooy dogal xam nga yooyu euh, nit dina ko def ci loo am mais du ko ñaan yàlla sax loolu am léegi nag àdduna dafa am léegi yeneen xeetu menace yu bees xam nga bu njëkk ba ay mbënd yi ngay dégg wala ci yeneen dëkk ay lakk yoo xamee ni dafa doy waar tey jii rek lakk bi am tey ci gazu Gajaga mënoon na nekk loo xam ne mun na gën a garaw boobaa day nekk loo xam ne ni bokkul ak la doon xalaat bu njëkk ba ba pare mu ñëw dal suñu kaw virus bi tey coronavirus kan moo mënoon xalaat ni dina am benn virus boo xamee ni dina ñëw yàlla wàcce ko ci ci ci ci suñu àdduna bi mu ñëw lëmbali lépp Amérique Europe ak foo mën a dem Afrique foo mën a dem virus bi ni mu leen tënkee amul dara lu leen mës a mën a tënke noonu xam nga loolu àdduna mooy dox su àdduna dox nag li nga xamee mooy say loi da ngay fexe ba méngale ko ak dox doxu àdduna. loolu moo tax ñu ne. Euh, loi bi defoon 69. dafa waxoon rek état d'urgence ak état de siège. ñu ne déedéet nañ ci yokk état catastrophe naturelle mooy bu fekkee dafa am loo ni ci jaww ji wala ci keew mi dafa ñëw am doole ba mën a nërmeel suñu réew. wala boog feebar boo xamee dafa dugg si ba mën a nërmeel suñu réew parce que loolu xalaatuñu ko ñu ne bu boobaa nañ ko defee noonu bu boobaan nag président. dañ koy may moom comme yooyu xeet la nga xamee ni euh, mbënd la walla feebar la mu mën a jël état d'urgence décrété ko même bu ko doon jël weer jarul muy jar assemblée nationale parce que ñun soxlawuñu ko parce que lu tax parce que président bu bu ko jëlee d'abord pour aar askan bi la pour xeex ak lenn la waxuma la sax président mais même feebar bi walla mbënd bi mën na am rek ci benn région xam nga kooku du jar ñuy def état d'urgence pour Sénégal gépp su ko defee gouverneur ba fa nekk wala préfet bu ma nekk président may ko sañ-sañ mu ne fii daal décrétant fi état d'urgence mais état d'urgence boobu mi ngi yem rek ci département de de Dakar par exemple parce que Kër Massar rek parce que dox dem bi ak génn bi ak dugg bee génn bi taw bi dem na ba xam ni am na lu mu tënk loo xam ne il faut ñu def état d'urgence pour mën a aar nit ñi ba seen alal kenn du ko sàcc wala kenn du leen gaañ wala kenn du leen yàqal d'accord léegi nag mbaa soulèvement nag du am ci bërëb nguur def lu neexul askan wa ñooñu jóg ñu tënk leen ci état d'urgence déedéet parce que dañu wax dañu préciser hmm. dañu préciser ni état de catastrophe naturelle yooyu du ca bokk kon déedéet yooyu bokk ci parce que état de catastrophe naturel ou sanitaire catastrophe sanitaire loolu kay lu leer la kon nag da ngeen ko bindee noonu mu leer nañu loolu nañ ko bindee dama bëgg sax ban hmm. dama bëgg sax article bi nga xamee moo koy wax ci constitution bi nga xamee dafa waxoon rek état d'urgence et de siège ñu yokk ci loolu ci constitution wax ni une catastrophe naturelle et sanitaire nga xamee ñaari day méngoo nga xam ni président la république xam nga boo jiitee nekkee njaboot yor sa njaboot wax dëgg yàlla di leen aar waaye doo leen indil fitna da ngay seet yow fi nga mën a jaar ba aar leen ba dimbale leen ba li ñëw di dal seen kaw nga seet naka lañ ko naka nga leen mën a jàppale ba ñu mën ko dékku ci ni mu gën a yombe waaye doo wut nag lu leen di fitnaal parce que li leen di fitnaal xam nga tey jii euh, Fatou. ni ma la koy waxee nii xam nga tey gouverneur mi ngi jël benn décret benn astaghfirullah benn circulaire wax ni euh, non dañu restreindre lii dem beeg dikk bi nangam nangam déjà loolu bu fekkoon tey am nañu loi bi dafay am base légal bu baax bu mu koy sukkandiku teg ko ci. au lieu mu nekk mesure administrative mu nekk loo xam ne au moins dafa jaar ci assemblée nationale ñu votel ko ko loolu moo gën a wér. que mu koy jël rek ci cadre administratif di ko def présidentam moom mën na xam xanaa xamuloo ni ci loi bu njëkk bi sax moom mën na décréter état état d'urgence dañu noonu rek fukki fan ak ñaar yi. Ah, bu ko ëppee bu ko naree wees mu ñëw assemblée nag feebar bu mel nii. su amee nga xamee nii kenn xamul fan lay yem bu fekkoon ni bis bu nekk ñu ne dañuy jël état d'urgence su ko defee def loi d'habilitation. am na ñoo xam ni xamuñu nu réew di doxee dañuy defee nii léegi daal Sénégal mu euh, euh, régime d'exception moo fa président lu ko neex def. waaw lu ko neex def régime d'exception te loolu. yaa ngi fàttali ko bi ñuy soog jël état d'urgence bi am na ñu doon wax ni président fi mu nekk nii ah jox nañ ko benn kii boo xamee léegi mooy buur bu bu ma ni la feebar bi yëpp feebar bi yëpp ba mu jeex juróom-ñetti ordonnance la ci jël. ordonnance benn bi pour protéger tra liggéeykat yi moom lu jëkk jël ordonnance bi mu jëkk jël mooy ah damay protéger. même ku leen bëggoon dàq doo leen mën a dàq wala boog di nga leen assurer 70 pour cent de leur salaire même bu ñu mënul liggéey waa loolu kay ki koy def day dimbalee askanam beneen bi mooy war naa def euh, euh, yokk euh, amande yi parce que bu nit duggee ci oto te solul masque war naa yokk amende bi waaw mais booy yokk amende bi defuloo ko pour sa kees gën a dund da nga ko def rek pour que nit ñi bàyyi xel ci ni war nañu. sol ay masque wala war nañu waruñu jël ay nit yu bëri ci biir oto bi parce que nit ñi dañu war a soriñante yooyu la ñu jël ak maa ngi dimbali nit ñi parce que dañu daan am seen matériel mu ñëw port mais xam naa ni fi mu nekk nii mënuñu fay parce que commerce bi doxatul. kon naa leen jàppale. ak ñi nga xam ne dañu amoon bor ci banque yi nga xame ni dañu waroon fay nga suspendre ko ni nañ ko suspendre pendant six mois ba pare la cay intéret état bi fay ko. waay waay waaye loolu kay ku koy def. yaa ngi dimbale say sa askan. d'accord hmm. léegi nag ak euh, loi bu bees bi coppite yi ndax assemblée dana mën a ba tey di euh, saytu li nga xam ne moom la nguur di def gannaaw président soxla tool jaar fa. ngir jël état d'urgence. waaw bu baax parce que bu fekkee nii dañ ko xool mu jëm ci wàllu catastrophe naturel su amoon catastrophe naturelle gouvernement bi décidé ni. dama war a dimbale nit ñi de un milliard. waay waay waay loolu gouvernement moo koy wax. lan mooy ci rôle assemblée nationale mooy bu demee ba def ko ba pare programme ba mu ko def bu ko indi assemblée nationale ñu xool ndax un milliard yi fa ñu wax nii fa lañ koy dugal dugal nañ ko fa wala déet gis nga mission boobu de contrôle assemblée daf ko mës am parce que loolu dafa bokk ci fonction yi mu am mooy contrôler l'exécutif mais léegi président daf ci yokkaat leneen daf ci yokk lu ñuy tudde évaluation des politiques publiques gis nga évaluation mooy lan mooy loo xamee ba la muy ñëw sax war nga cee mën a wax mm. mais bu paree tam mën nga ko saytu ba xool segam man naka laa koy natte loolu nag wax dëgg yàlla ci 2016 la ko président dugal ci référendum bari na kuy coow te référendum boobu sax noo nga wote wat waay waay waay nañ ñu bàyyi rek ñu liggéey li ñuy def nii teg nañ ko ci yoon wu leer te itam njariñu sénégalais yi rek la amul lenn loo xamee ni dañ ko ci def loo xamee ni du jeexital ci sénégalais yi ci njariñ pour que sénégalais yi seen dundin gën a mën a yomb gën a mën a baax ñu gën leen mën a aar ci li nga xamee ni nii jàpp nañu ni ay musiba la yoo xam ne bu duggee ci réew mi mën na leen faagaagal wala mu boom leen. alors mbas mi ci première vague bi itam euh, ñu ñi bari ñu ngi doon am xel ñaar ci xaalis bi nañu ko doxalee ak la ñu waxoon ne ñu ngi koy jëmee ci askan wa fa mu jaar yow tey en tant que député toogal askan wi euh, ca assemblée nationale euh, yorinu boobale fonds wala yooyule fonds. ci hmm. première vague bi. Hmm. loo ñu ci mën a wax ndax ñu bari seen xel wax dëgg yàlla na ci. waaw député maire tey. député maire parce que dama dëkk ci euh, commune bu ñuy wax mairie Ndaxar état bi indi fa ay ndimbal yu bëri ah, bi ñu bi ñu ko indee man dama toog Dakar chef de village yi ci boppam di def ay communiqué ci rajo bi di remercier président la république mais di remercier tam maire bi ci li mu ci yokk pour won la ni lépp loo xamee waxoon nañ ni nañ ko indi ci suñu gox indi nañ ko beneen bi ci des nag pour tontu de façon générale mooy xam nga boo bëggee lu leer da ngay def comité boo xamee dafay saytu président dañu mettre par décret dafa nommé benn comité boo xamee mooy saytu lépp loo xamee ni moo jëm ci force Covid 19 boobu. ñu defoon ci benn plan plan boo xamee ni plan de riposte la woon def ci 1000 milliards. benn général bu armee moo ko jiite. ay député ngi ci. képp ku nekk assemblée nationale député majorité ngi ci opposition ngi ci ak non inscrit mooy ñi nga xam ne féetewuñu fenn. wax dëgg yàlla bu fekkoon ni ñoom dañu ñëw ni ma ah li ñu gis leerul. dinaa la wax nii am na jeexi jax waaye ba fii ma toog ak yow. kenn waxuma ci lu leerul. Hmm. léegi nag ñoo ngi xaar rapport bi nga xam ne général dina ko def parce que moom fépp fu dërëm dugg rek. ñoom dem nañ fa. gis naa député yi ñu def ay mission. dem Podor dem Matam dem gi dem Casamance dem ba fo foo xalaat ci Kédougou dem nañ fa hmm. waaye ñooñu kay wax dëgg yàlla ñi ngi def liggéey seen liggéey boobu nañu leen wóolu. xam nga nit su fekkee ni dafa lay seetal te li mu lay seetal moom dina def rapport pour wax la mais man nag li ma la ci mën a wax tey mooy comme am nañ fa ndaw tax yaakaar naa bu gisoon dara dina ñëw wax ma ko ba fii ma toog ak yow dégg guma ci loo xamee ni dafa jaarul ci yoon néew ma amul waaye dégg guma ko maa ngi xaar nag rapport bi bu rapport bi ñëwee xaj na dinañu mën a leeral ci wàllu woowu. d'accord kon ñu ànd xaar rapport bi fi ñu jeexalee président mooy at mi euh, du woon année électorale ndax ci lañ daan gis yenn yëngu-yëngu ci politique waaye at mi itam euh, naam mbas amoon na fi mais yëngu woon na lool ci wàllu politique yaa ngi ree daa xam nga fi ma jëm président moom xaw ma lu mu deful waaye yaatal na ci géewam bu baax a baax loo mën a jàpp ci at mi wax ñu ko euh, surtout ci wàllu politique. waaw li wax mooy yàlla daf ñu may président boo xamee ni ba mu ko xamee ba tey euh, bi mu nekkee président même lu jiitu moom muy nekk président xamoon naa ko nit la ko xamee dafay yaatal géewam moom du du tëju moom dafa dafa nekk nit koo xamee dafa jàpp ni am na yoo xamee ni mën nañ ci waroo mais am na loo xamee ni nag bu dee intérêt Sénégal la dañ war a juboo li ñu war a juboo mooy fexe ba suñu réew mi ñu fiy wax jàmm di fi dox jàmm di fi def itam luy wutal jàmm ah fexe fa bi nga xamee ni moom la ñu bokk te yàlla di ñu ko may muy ay wërsëg yi jóge ci suñu suuf lu mel ni pétrole ak gaz ak ressources minières xam nga fan yii rek dégg nga ñu naan euh, mine yi daal dugal nañ ci gafakay réew mi loo xamee jege na cent milliards xam nga yooyu Sénégal yaa yaa yaa 10 ans doo ko dégg sax kenn mësul di wax loolu. parce que Sénégal ñoom ñoo jël seen bopp décision. dem adhéré ci it ITIE bi nga xamee ni. amul dara loo xamee day génn ci sa suuf. te doo ko wax ba nit ñi dégg ko. jàpp naa ni nag Sénégal bu ñu nekkee ci réew mel noonu képp kuy def politique am nga politique boo mën a def parce que mën nga waroo mais am na loo xamee bu taxawee nga xool Sénégal fi mu toll tey ak fii réew yi ko wër toll am fa am loo xamee dafa am solo mooy ñu fexe ba aar ko mooy fexe ba waxtaan bi nga xamee moo war suñu diggante ñu koy def ba saytaane bañ a dugg suñu biir indil ñu fitna boo xamee ni parce que yàlla dafa rëbb kii yee fitna kon loolu mooy li may gën a rafetlu mooy tàllal loxo président bi mais tam di remercier ko wuyu mais di woo ñi nga xam ne wuyu si ko ñu xam ni intérêt Sénégal mu ëpp suñu intérêt particulier. waaw baabu ñëpp wuyu see opposition am solo cim réew. il faut que mu am opposition nag. man mënul ñàkk il faut que xam nga man li may bañ. Mm. mooy ñi nga xam ne ñoom seen benn nit la ñu rek am plan carrière toog rek ni man daal dama war a nekk lii bu ma nekkul lii du ma du ma d'accord loolu nag mënu ko génn ci àdduna. parce que adduna moo bind noonu mais man d'accord naa opposition am ah il faut que opposition am mais itam dafa am yoo xamee bu bu fekkee dafa posé wu nañu waxtaan. xam nga man euh, fi mu nekk mënuma ma lay tuddal ay dëkk parce que sama diplomatie. Mm. ëpp na may tudd ay dëkk. Mm. mais am na dëkk yoo xamee ni la fa xew dafa xew. Mm. parce que dañoo mënul woon a waxtaan. Sénégal nañuy waxtaan. nañuy diisoo am na problème yoo xam ne bu xewee nañu xam ni Sénégal moo ñu ëpp ñun ñëpp. parce que ñun amuñu beneen dëkk mënuñoo dëkki feneen Sénégal rek la ñu mën a dëkk dëkk bu fekkee fi nga dëkk fi ngay dund fi lañu lay suul amuloo beneen nationalité waay waay waay waay nañu góorgóorlu waay loolu rek mooy wax bi. jërëjëf président ñu ngi lay gërëm bu baax ci disponibilité bi surtout ci Rewmi FM heure bu ñu la soxlaa digg dëgg yàlla nga ubbil ñu say bunt ñu lay ñaanal at mi di ñëw doon atum jàmm ci yow ak say jegeñaale yépp jërëjëf. waaw man nag Fatou ban damay am mbégte di eh, waxtaan ak yow. man bariwuma sax lu may wax lu bëri waaye am naa mbégte di waxtaan ak yow ñu waxtaan ci réew mi sottante xalaat su ko defee réew mi mën ko jariñoo maa ngi jàpp ni réew mi lii dinañ ko mën a jariñoo